Core X4, Shark X3 sont des appareils révolutionnaires, dernier cri, très performants, d'une très grande résistance, éprouvés aux normes militaires ip et dotés d'une alarme en cas de danger. L'entreprise Crosscall est le seul qui propose une garantie sur 3 ans. Contactez-nous vite dans nos boutiques showroom avenue Bourguiba et à sur la Corniche 33 améliorez votre quotidien. du ma ci xuus pour le moment mais xam ngeen ne dinaa ci xuus mais tey lu ma indi fii c'est une affaire judiciaire nga xam ne dina ma tooñ ah dama am sama njaboot am ay doom am ay xarit am ay sympathisants ci de réew mi je m'en suis rendu compte le 2 septembre dernier le jour bi nga xam ne sama mission terminée na euh, maa ngi profite de l'occasion pour remercier sénégalais yëpp ñëpp sans exception suñu déggee nag koo xam ni askan bi moo la yónni ñu naan ndaw askan mi nga parlementaire député du peuple pour des raisons de affaire pouvoir ay privilèges conserver un pouvoir nga ne doo ko bàyyi boo ak suñu maam Ablaye waat defoon noonu je dis que ñun ñi nga xam ñi ngi ci régime bi tey ci ci laa bokk ba léegi mouvance présidentielle laa nekk ba léegi génn ma ci je suis pas un opposant duñ ko jot Abdou Diouf pareil du ko jox Wade donc loo xam ne yàlla moo koy joxe bu jeexee jeex na bu waree continuer continuer mais conformément au droit man sénégalais yi li ñu ma xamee mooy moom franc parler kenn mënu ma vaar au Sénégal ma répété waat ko beneen yoon kenn mënu ma vaar au Sénégal ma répété ko une troisième fois kenn mënu ma vaar au Sénégal sama waxu démb mooy sama waxu tey ay privilège taxul man may dugg ci loo xam ni demain maa ci ruus parce que j'affronte les journalistes ku ma tegal waxoon ren yaa ngi yox yox yi lu dugg ci diggante bi je serai très petit. dama ne kii jël naan nañu jël ay jaasi rey ñëpp ñoo xam ni dañuy défendre euh, dañuy contre troisième mandat je pense que dañu bëgg a rappeler Rwanda li fa xaw. si vous vous souvenez récemment ma position elle est claire et je ne reviendrai pas derrière. donc man je suis aujourd'hui benn potentielle victime. mën nañu ma donc dóor jaasi parce que je suis contre un mandat. gis nga man euh, tiit nekkul ci man na yàlla laa gëm et son prophète. nga jàpp su ma neexoon suba suba suba comme que waa ji xam nga woowagu ko. je demande au procureur de la République de s'autosaisir mën na ko il a l'opportunité de poursuite mais mën na ko mën na ko saisir ñu xool naka liy def lever son immunité immunité bi sax jàll kii parce que du flagrant délit il n'est pas en session donc mën naa jël demain toog sama salle jël sama arme teg samay bal ne képp ku fi wax